di leen nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy alxalifa di Cheikh Abdoul Fadil Mbacke. di sant bu baax Serigne Fadil bés bi nga xam ne moo doon def waxtaan wi muy thème bu am solo thème boo xam ne kere bi ñu koy xalaat fii ci kër gi bi ñu jàppee thème bi mooy xitaabul muridiya xawoon na noo am ay jafe-jafe ci ku koy mën a traiteel mu mel ne sëñ Fallou kon dafa lekk ab jiwam ndax xalaat nañ fu bare bare ba ñu ne daal gis nañ ne sëñ Fallou ba su ko ko jox liñ ci bëgg daan ko ci am ñu ñu ñu koo woo xamal ko naka yow lan taamu ci mawdoox bi ngir nga leeral ñu ko waaye liñ ci doon séntu lépp nag daje nañ ceeg moom <laughs> ndax ku fi teew ku ne baa ko wonoon déglu am nga ab dërs bu bees ci ni wax war a tëdd ak nin ko war a ràññee ndax li mu wax léegi alxitaab ak muhaadara ak bayaan ak xadiis yooyu yépp fi ne ñun nit ñu taxalewul leen waxtaan rek waxtaan la ñuy def waaye li wax ku ne xam na ne ku ci ne am na welo mero woo war a mel ak noo war a waxe kii def kitaab bokkut ak kii def bayaan kii def bayaan bokkut ak kii def muhaadara ak ki nga xam ne xadis lay def li nga xam ne moom la ëpp moom la gën a gaaye gën a mën a def toog di waxtaan ne fa ngay nag bi li tax jël thème bi danoo xool ne wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg la jël bi bari ci yoon wi nag mm-hmm. wax ji bari ngeen baal ma peres bi kun koo gis rek mu sol mu mu rafet ak mbaxana nga jox ko kàddu na ko mu wax lu ko neex. loo ci xam loo xam ci lii tax léegi ca ku ne wax nag na ngay doo ci dara waaye jox nañ la kàddu rek doo ko delloo nga wax na nga déggee wala na nga gisee waaye doo ko teg sax ma xam loolu nag bare na ñu muy yóbbaale ñoo xam ñi xamul moom. kun seen ñu jox la kàddu rek ñu ne ca rajo ba laa ko déggee wala ci teebe laa ko gise wala ci internet laa ko gise mm-hmm. bari dañuy jàpp ne loolu wér la mm-hmm. te wax nag ñu xam-xam na ne li ci ëpp liy jàll wérut tegul fenn moo tax ñu tànnoon thème ngir bëgg nit ñi gindi ko waat ci waxtaankat yi ak waxtaan ni mu war a deme ñu ngi koy gërëm bu baax liñ ci bëggoon lépp am nañ ko xanaa ñu gën a bëgg nag ni ñi jàngat jàng ci nag ak góorgóorlu ba dimbale sëriñ Touba di nga dimbale yoonu murit ci wax ju bare yi nga xam ni teguwut ci laa asaas la ku ne wax rek. ñu ngi gërëm bu baax sunu doom ji doon wax moom itam maam Cheikh toogaal la ñu ngi koy gërëm bu baax ak mu jot dana ñëw mu ngi yëngatu bu baax ci yoon bi. ak di bëre ci yooyu waaye ñun ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ne bare na wax ji jàll joo xam ne noppi moo ko gënoon fuuf gëm nañ ni itam ne attaques yi dégg mu mel ne jëm ci yoon weeg jëm ci sëriñ bi li ci ëpp solo ci ñun mooy noppi ci ndax xeexal koo xam ne dafa jéggale dafa ba dañ koo tooñ bëccëgu ndar kam def ba tële mu baal leen te boobu mënoon naa fay sëñ Tuubaa jàmm ji tax na mës a dem fenn mësuñ ko woo fenn ba muy dem ànd ak nit mu wala ko woo muy dem ba maam boobu ba muy dem mënoon naa mbooloo biñ koy woo fii ci Mbàkke ci suñ mbokk moomee ma ba muy dem ñu nekk ci kër gi ñëpp ñoom doon jekk-jekk gis mu war fasam géej ba ndégal loolu buy ji jotee nit daa ca topp waaye waxul kañ kañ kenn dem dem ci géej gi tam ba mu jugee ndar fa muy dem fa noonu yooyu dem ci géej gi kon koo xam ne wutul wéttal ci dara yaakaar naa jërut xeexal kon nag yaakaar naa nan ko bàyyee rek képp ku ko song ñëpp dana gis nga daanu ci suuf te kenn du la ndax ki koy bëreel mooy mbër bu mag ma sunu borom hmm. kon yaakaar naa man sun man xel man noonu dal ci bàyyi ñi wax aka dal tëlli tëlli daam njariñ tax ndax mel ne bu ñu leen dee tontu day mel ne li def am nañ yëg nañ dëgg yàlla njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga fekk naa leen fi moom mosuñu am soxla ci loolu kuy kuy wax ci sëriñ bi dara seen mos dégg seen daal dam ca tontoon ca kabin la journal ba suñu sëriñ bu dégg lam ca tontoon kon nag nan bàyyi sëriñ bi ci wet googu moom jël xulool jël xeexal mën na mën na boppam nee woon sàmba mu mënut kanam maanaam ginnaaw moom bokku ci mën na kanam mën na ginnaaw ko bàyyi moom kon waa ñu ngi sant bu baax sañ Fallou di sant maam Cheikh di sant mbooleen ñi teew ñëpp nag di beral ak cant nag suñu doom yi nga xam ne ñoom lañ dénkoon bis bii suñuy doom ak suñuy garbat ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay bi ñuy taxaw ren ji te di leen soññ nag ñu gën a góorgóorlu xam ne lii ñu leen dénk yéen dong dénkuñu leen ko kër gu lu mel nii am na fa ñu dénk ko ñooña gis ngeen tam na ñooñooy dox kon na ngeen góorgóorlu ba nañu ni ñépp kër yëpp yi def bu ngeen si gànn mën ay gone ngeen ñu ci bari dëggal gun waaye nag man lu li gone yi def sax la ëpp yaakaar ci lu mag def ndax avenir ci gone yi la ne kon nag te yéen ñëpp yàlla def na ci ëpp dañ leen réer ci yéen a maase mën ngeen a jëflante ci lu bari kon nag li koy des mooy ngeen am pas-pas bi rek ak dogu gi fexe ba lii ngeen di ko waajal bu baax a baax li ci war lépp ci waajtaay ngeen di ko def mooy tax li ngeen bëgg mu mel mu mel ni te seen maam ji kat ñuy wooteel moom yomb a wooteel yàlla def na nit ñi bëgg nañ ko sopp nañ ko am nañ ci moom yaakaar te doyuluñ ci moom kon nag sa bu ngeen ko wootee jëm ci moom te woote fullu ci fulluwu ci yow foo bëgg yàgg da nga ko kon nag ñu ngi leen di soññ ngeen di gën a góor góorgóorlu lu baax di gën a dajale di gën a boole seen bopp boole li ngeen man ak li ngeen am ci jëmale ko ci bii ngeen saxaaba jéego bii ngeen seq ren bu dee ngeen seq bu ko ab fuuf te bu ngeen ko defee rek. incha allah bu ngeen ko def yàlla dana leen ci. loolu la ngeen loolu laa ñu leen di dénk baax di leen gërëm baax di leen sant ñuy ngi gërëm baax mboolem fi nga xam ne jaar nañu ndax xam ngeen ne màggal gi sànni bële lañ ko tàmbali woon am ay waajtaay am na ñeenti waxtaan waajtaay yu ñu ciy def. Mhm. bu njëkk bi ñu ko defee woon Daaru Salaam. Mhm. ñu fekk wa suñuy bokk ak suñ ci asawaala ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ku ne xam na li boole Sëriñ du Khadir ak siñ ci asawaal waaye ak li ko boole ak njabootam loolu taxaw ñu tàmm ko dem fa ban fa demee tam lan fa lan fa yaakaar lépp fekk na ko fa mhm. teraa ngay mën na sëkk waxtaan am na solo bokk yëpp teew na si ban fa jógee ñu ñëw Gédé kër Sëriñ Baara ñam mhm. fekk wa Sëriñ Abdou Rahmane mii moom itam tubaarkalla mhm. xam na li mu bokk ak sëñ Abdou Khadir Baara moom moom sëñ Abdou Khadir mooy sunu moom Cheikh la mel ñoo ba noppi nag jaxasoo woon lool. lool lool lool. lool am fu ko teg bu wér sëñ Baara fonk ko am bu wér batale ko boppam loolaa taxul ñuy demoon fa. moom itam fekk fa sëñ Abdou Khadir ak njaboot ak sëñ Baara yëpp moom it la waroon ci bis ba ci teraanga ak waajtaay ak waxtaan yëpp tubaarkalla sant nañ seen xol seen na ci bu baax. gannaaw ba ñu jógee fa dem kër Serigne Abdoul Baax fekk fa sunu mag soxna may muunat moom itam tabaarakalla la ko waroon ci bis bi lépp def na ko ànd koog njabootu Serigne Abdoul Baaxe ma koy wax ak ne foofa bu toon soxna may itam war mën nañ faa dem waxtaan fu kër Serigne Abdoul Xaadir mm-hmm. ndax diggante Serigne Abdoul Baaxe ak Serigne Abdoul Xaadir ñëpp xam nañ ko ne ko fi ko Serigne Abdoul Baaxe tegoon fonk ko ak doyloo ko ak fi ko sëñ bi tegoon kon bu doon soxna may mën nañ faa def waxtaan waaye ñu fekk far suñu soo may comme ni ñu ko baaxoo def day am waxtaan boo xam ne benn bi nu ko jëmee jabar Sëñ Abdou Khadir moom it bañ ca defee mu sonn ca lool da ca war lépp def na ko ñu gërëm ko bu baax sant ko bu baax moom it ndax xam na ne moom la ñuy mooy suñu mag suñu xarit suñu lépp moom itam tey jii nag ci leen doon ci leen doon tëj waxtaan yi gëm ne mooy waajtaay màggal muy conférence bi ma ñu jox ko suñuy doom ak suñuy jarbaat ñoo ko doon taxaw tabarkàlla sant nañ ci baax liñ jëloon séntu moom it am nañ ko ci bu baax a baax li ci des nag mooy gën a góorgóorlu rek ca xam ne lu ñuy def par at la te lu ñu waajal la lépp la waajal ak du la mën kon nag ngeen fonk ko waajal ko bu baax ñu gërëm bu baax presse bi nga xam ne ñooy ñëw itam ban tàmbalee ba fi ne ñi nga ànd ak ñun guddi ak bëccëg muy taw lu mën doon fu dem ñu fekk ñu fa kon nag ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax seen taxawaay ndax média mooy doxal lépp kenn mënut a dox léegi ci àdduna ci ànd ak média kon nag ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ñu ngi sant ñëpp nag di sant bokk yëpp di sant sant soppe yi ak wëllëre yi sëriñ Modou tax daa wax ne sëriñ Abdou lu ma ci woote sopp yi ak wëllëre yi ñoo ci mën taalibe yi mhm. ndax ay moom loolu da ci am doole ñu ko am kon nag soppe yi ak wëllëre yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant waa njabootu bopp mu taalibeem yëpp itam di sant daayira yi nga xam ne ñooy daayira yi kër Sëñ Xaadim fédération Touba bi ci njiitu Maamoor ak ci station Dakar ci Cheikh Gumbala ñoom ñëpp dañoo waral ci bis tax na ko di sant waa waa Itali ci desu Maamoor sànq moom itam leen war di sant ñëpp daal di ñëpp lii la ko doon tënk rek xanaa li des nañu bàyyi ba incha allah ba ca sëriñ mu ne bu jeexee cante ca war nag bu soo koo delloo ñëpp kon nag ñi ngi sant ñi fi ta ñi fi teew ñëpp di sant suñu doom yi fi doon jàllale ñu ngi sant ñi fi doon ñi nga xam ne jàllale leen fi yëpp ay kaddu ci suñuy jarbaat seen Cheikh Mbacke mi fi jàll léegi suñu jarbaat suñu sët boobu doon def way yi tuwarka la